dañ ko mere woon dañ ko joyante Aly Ngouille Ndiaye Aly dafa bëggoon a dem bu yàgg wax naa ko dès le départ et il n'est pas le seul dafa yàgg bëgg a dem mais moo tëbee tëb dem tu per ce qu'on appelle peut-être que prime victimaire bi da koy da koy xaw a perte parce que xam nga fii day mel ni choisiruñ ma moo tax ma dem non non non quelque part parce que day mel ni choisiruñ ma moo tax ma dem ki ñu choisir d'accorduma ci moo tax ma dem est-ce que dégg nga wax ji donc moom demam il fallait un prétexte parce que mënul tëb tëb rek yeewu ne bon écoute man damay dem euh, ak sama langue léegi euh, candidat la c'est vrai il a le droit d'être candidat comme tous les autres mais dem bi bu fekkoon ne par exemple il assume sa position politique mënoon na dès le départ ba ñuy wax ay waxu candidature muy yàgg ñuy laam-laamee tey la ko président di wax suba la koy wax mais mu dem yoonam ne man damay samp sama dund mais il a préféré attendre c'est pourquoi je parle de prime victimaire ba presque dana jox nit ñi dans la dans leur euh, subconscient que dañ ko football <laughs> waaw parce que choisiruñ ma dañ maa xalab donc maa ngi demal sama bopp donc foofu laay waxee prime victimaire donc moom ci boppam Aly Ngouille Ndiaye lu mu préparé woon la parce que président candidature gis nga candidature kenn du ko improviser munoo yeew à cinq mois nga taxaw ne man tey tey tey tey candidat la bon c'est vrai tu vas me dire Amadou moom aussi cinq mois la mais parce que moom choisirul boppam il fallait que quelqu'un choisisse. et puis on met à sa disposition une machine. moom laa lay wax c'est ça la différence. Kële il machine locale Aly Ngouille il a une machine locale à Linguère mais il n'a pas une machine nationale. il faut qu'il construise une machine nationale. mais il n'aura pas le temps. dooleem dulier nañ ko de avec. Euh, Samba Diobène non non c'est pas grave même loolu sax bu ñu ko ko considérer moom ba tey Linguère am na fa amul problème mais dama la bëgg wax ne fa la yem mouvement ba mu créé woon ak yëpp euh, dooleem foofu la yem ca Linguère bu génnee Linguère Aly Ngouille Ndiaye n'existe pas politiquement loolooy problème bi te bu fekkoon ne on à deux ans des élections il aurait pu se construire une assise nationale mais à cinq mois te amoo appareil boo demee tu vas à l'aventure euh,